asalaamaaleykum Sénégal sénégalais yi fa leen toll Khadim Gueye fii ci Italie ñëw na nuyu leen fekk la fi nga toog bii la ku bëgg jëlal ku bañ yaa xam nga toog fële ni ko Viviane di waxe mooy loolu voilà kii moom fekk coronavirus bi mu ngi Sénégal di lëmbe àdduna bii laa leen di jox ku ma dajal ci yéen nag bu ma jox loxo bul ko jéem parce que sinon damay bañ de te arrangé wu la donc jox ma conc bi rek mu jox la ko waaw wala nga jox ma bu tànk bi ma dóor la ko mu fin voilà foofu lañ àgg ñu dellusiwaat tey la samedi di 27 mars 2021 ñëw del ci affaire bu gaaw tey moom vidéo bu rapide laa indi dóoral parce que dama gis benn événement boo xam ne am di ko rafetlu parce que Euh, coalition ba nga xamné ne si ci le activiste yépp bok ñom Karim khoum khak Assane Diouf ñom Clédor sen ak ñom dambo mi nga xamné ne si mi ngi lambar lambari ci télé bu nek wax ci melna na ne politique mom moko yor donc euh, ñeneen yi mom légui ñom ñoy ad ay adversaire mom nak mom leader politique la bëgg daf boppam te foko fek programme bu né du may kenn mu wax mom ngay dégg muy ratatatatatatat ju kenn xamut hein au lieu mu dem jangal suñ doom ye di jangale kat ah, ci télé ye ci journal ye rajo yi la koy mais problème le sénégalais yi dañ ko ci lool voilà di batailles si batailles civiles mais c'est des batailles personnelles bu diw problème ak diw mu far justifier même ces personnes là ak ay convictions ñu bàyyi li nga xam ne mooy justice justice ba léegi mu ngi ne muut ne pat ay dàmboo jeg ñu mel noonu rek ngay dégg waaw yenn sëriñ yi ñoom ñooy doon wax démb ak bërki démb yeneen sëriñ yi ay député lañ ñu mel ne ay Cheikh Bara Dolly dégg ngeen leen fii ah ñu génneen fi ay photo ndeysaan yoo xam ne xale bi muy aji Sarr yéen ko gis mu présenté leen comme aji Sarr koo xam ma nga sol yu bon tey jii dem nañ ba démontré ko ne kii du Adji Sarr mu naan day prétendre que Adji Sarr na génn jéggalu àdduna yow suñ baara dolli yaa war a génn nga jéggalu Adji Sarr nga jéggalu Sénégal yi parce que photo ya nga fa génnee devant l'Assemblée kooku du Adji Sarr bàyyi leen doomu jàmbur bi voilà di leen rappeler waat toujours ah mouvement bi nga xam Françoise Hélène Gaye taxawal na ko man tax ma soutenir ko parce que elle est la première bu am fit génn ñëw taxaw taxawal li nga xam ne si mooy mouvement boobu de soutien ba tey jii mi ngi lembe senegal yep ci lu matul une semaine ñep ah, ñëpp ñoo ci ginnaawam voilà man li la bëgg ci nit réseaux sociaux buñ bu koy utiliser da nga koy utiliser ci am solo waye nek wi saagante ay nday ak di waxante yu ñaaw ak di gaaruwaalanteeg di jëwanteeg yooyu amul ben ngari bo demee ba xam lo xam si vraiment ah, bataille la boo xam ne jar na ko ah, dañ ci wara and ànd képp koo xam si jiite na ko nga fekk ko ci man de dama koy def chapeau waaw Françoise bul bàyyi tëjal fi nga ko jàpp foofu la voilà bul déglu sa noonu bul déglu ku lay wax lu ñaaw bul déglu ku lay saaga bul déglu ku àndul ci lee parce que iñaan ak soxor ci àdduna lañ ko fekk nit ki booy def lu baax ah buy ay yenn télévision yi yenn site yi dem ba di la woo parce que xam nañ ci lu baax nga nekk boo nekkee ci ay saaga ak yenn yi ah ñu bon kessé ñoy jël sen téléphone bi la wo la invité waaw sénégal dañu il est temps que ñuy dem di dox ci lu baax lu am solo lu am njariñ xalé bi néna la jigen yépp dañ ko wara jappalé lutax jigen amul tul importance sénégal wax naan ko sama vidéo bi passé jigen dañ koy foyé jigen amatul ben importance jigen dal goor dafa wara tek ci kawam jigen goor mo wara am deug ci kawam par force te lolu ken bind ko fetna parité boobu ñuy wax ah du warul nekk ci ay paroles dañ ko war a traduire en fait pratique voilà kañ la Sénégal jigéen di ko yilif jigéen di ko jiite bu nekkee di yu mel nii ñu koy jiñ ay góor parce que ils sont puissants tax que ñu jël fot ba bu góor gi juumee sax ñu teg ci jigéen ga jigéen du mës a jiite dara Sénégal du mës a du Sénégal kese Europe bi ñu nekk demal Amérique Asie jigen toujours deuxième lay nekk bu nekkee deuxième sax amna chance mais pourquoi pas jigen bi nga xamné kër ga mom mo yo organiser sa dépense bi boko joxé jigen moko gérer hein ah. boko joxone gor du génn fin du mois bala nga fay ag la nga jox jeex mais jigen moko gérer lu tax importance bu ñu ko jox jigen waaw attaque na fi Babacar Touré man nako neex mu nakari ko intéressé wu ma dama wax liy dëgg loo xam ne yéen ñii ku dem ci ay documentaire mun nga ko gis ay feni kese loo gis toujours jigéen ji moom lay dóor gisul na benn góor bu mu fi daaneel ay jigéen rek pour intérêt personnel man ñooñu mënuma ànd ak ñoom tey ak suba ñii naan ma journaliste la du journaliste je m'en na nekk journaliste na bañ a nekk journaliste problème am la c'est une question ko moom moo leen ci war a répondre wala mu ñëw fi won leen kayitu journaliste am parce que weddi nañ la sa waay gars yi weddi nañ la de doo journaliste France gee nga nekkoon ñëpp mu ci dégg dafa maa laajal Babacar Touré ndax lan la fi mës a def comme journaliste man leen man xaw ma ci nee na journaliste la bu dee journaliste na démontre qu'il est un journaliste pas un fenkat kat boo xam ne ay intérêt personnel day ñëw di farak fii Xadi Njaay mais wax naa leen ko bërki démb won naa leen lien bi koo gisul ñi ko war a gis yónnee naa leen lien boo xam mu ngi laajte ay xaalis pour ñu dajaleel ko ndaw se kooku ban genre journaliste la kooku moom moo ñuy indi dëgg koo xam dafa far ba pare ah nga yow di ko gis muy ànd ak Ousmane Sonko du matin au soir ci Atepa defoon nañu ko ma nga ne ànd ak moom mais kooku amul lu ñu war a gëm ci moom bu ngeen ko bëggee gëm ngeen gëm ko man gëmuma ko ñeneen gëmuñu ko donc nag ku bëgg a déglu waxam yooyu parce qu'il parle très bien man mii au début dama ko don setan gëmoon ko mais à la fin laa ne waa fake la ngayen ki kii féetewul fenn lu muy wax tay bu subaa dana lek ñëw di la gëmloo ko ne man damay def ay investigation damay ñëw damay monter ay seen sen yo xam mo dem falsifier ko mom ci bopam mais ko do du dara du tous Babacar Touré do fagan do dara zéro man maa la ko wax voilà yu bare yu ma xam ci mom du ma ko wax fi parce que sa vie privée xam naa ko wax nañ ma ko mais intéressé wu ma quoi ma ñëw di leen ko wax mais lu mu leen di won ak seen waajee li mu leen di won ça deux ay fake lañ duñ tous duñ dara je le dis et je le waaw wax naa la ci jigéen maam jaar a je te répète ici Italie lañ la fale Italie amul won ma fi ñetti combat yoo fi combattre yoo xam ne gagné nañ ko gis nga man dama toog fii Pape Pape Abdoulaye Seck mais di ambassadeur ba damay dëkkante ak moom Rokhaya Ba bim nekké fi yor consul bi liggéeyul sénégalais man mi lañ doon wo grand yow ya mëna wax yow lañuy dégg bama leen waxalé jëlé nañ ko fi yobbu ko fa motax en tant que député de la diaspora nga tok dégg na fi ay menaces ak ay xaadim ngey dañ régler ay problème man sama problème mënoo koo régler zéro la la wax waccé la ba zéro coow lu bari lex sa affaire théâtre yoy ngay def ci télévision Sénégal yi damal nga yamale ko fof, mais Italie dama bëgg question bi moy je n'ai rien contre toi lan nga ñu defal lan nga ñu xéxal loolu dem ba assemblée Sénégal di la ay italien parli male l'italiano man sei menace mi ci pulisco il sedere te lo dico in italiano e mi capisci benissimo parlo meglio l'italiano che te quindi nañ bàyyi affaire boobu ñu teg ko fee yooyu na ko jaay sénégalais yi di leen jaay di leen góndi ay paroles italien yu kenn xamul mais mënoo ko jaay koo xam dafa jàng ba ne arre italien téye ko may ñu jàmm te wolof yu wér lay wax ak yow donc sa ay menaces ay da nga régler samay problème man sama problème mënoo ko régler du yow du keneen te bu ma déggatee loolu dinaa la wàccee à zéro fii di nga ñëw nga won ñu ñetti chose yoo xam xeexal nga ci assemblée bi lan moo taxoon ñu fal la fii boo ko deful lan lañ lay doy yow ñu fal la fii nga dem boo fale ca Sénégal di fa régler ay problème yi Sonko ay aji saar yu kenn xamul fu nekk yaa nga fa mais loolu moo taxul ñu fal la Italie suñu xaalis ñoo la koy fay par weer jox la kat-kat dina jox essence fële am ah. su pour suñu ay problème la boo ko mënul keneen dina ñëw keneen ku fi falu man jéemuma defuma candidat ñoo ma grand nekkal candidat non intéressé wu ma mais kenn ku fi taxaw dinaa la fayet laa la wax maam jaara faam bañ tàkkal li nga yor demal Ousmane Sonko wala keneen mu fal la mais bul ñëw nekk député de la diaspora ñi nekk Italie maa ngi leen koy wax wax leen ma lan la fi maam jaara faam wax bi fi roq ya nekkee man mii ngeen doon sonal bis bu ne yéen ak may woo Roqaya ah, ma maam jaara faam ak ay nangu sekk lan lañ ñu defal gisuma ci dara te man doo leen ma taxa fen je l'ai dit à l'ambassadeur je l'ai dit à ki nga xamné ne si moo remplacé Rokhaya fii boo leen defee lu bax ma ci gëna content kontaan damay ñëw fi ma éloger leen ba ca kaw té ku len laal ma laal ko waye bo len deful dara fi lay ñëw ma taxaw mu wax ko sama ndekki sama añ sama reer dépendre ci yéen donc dafa war clair donc mam jaaraat budé lañ ma wax dëgg laak yoy ma ngoy vérifier hein sa ay menaces man safuma mi ci police ko il sédéré te lo dik ko chiaro in italiano daf war a clair léegi nag li tax ñu ñëw tey gis naa coalition bi nga xamee si yàlla dimbali leen Assane Diouf Guy Marius Sagna Clédor ñoom ñëpp génne nañ leen ak dàmbooj mi nga xam borom lambar lambar ju bari ji jitale yee ku ne mel ne moom moom Sénégal actuellement acteur politique yëpp dominé leen du may kenn mu wax dem nañ ba ci suñ mun taxaat tey ma gis xurum xàq moom moo def image yi ma leen di won voilà bam paré ba ci señ bi señ muntaha lu muy wax day clair day lèr ba dégg mu na señ bi def na discours révolutionnaire comme quoi señ bi ñu bokko def activiste bayi len señ muntaha ngeen jël ko ay waxam ngeen bokko jël bokko def sen ay pratique personnelle dambo mom dem na bané ne assane diouf kessé la wax seen assane donc assane rek mo fay talib mourid bo xamné won nako demb won nañu ko tay voilà donc assane diouf mu nako ko mais yeen ñi ay xurum xàq ah ñooy ñoo xam ne ay ibaadu lañ woon ñoo fi doon contre bi ñuy saaga sëñ bi ci boppam fii ci réseaux sociaux yi kenn ci yéen génnul du dàmbooj du xurum xax kenn génn ba ci seen leader bee ngeen jiital kenn génn ci naan sëñ bi ngeen di saaga li ñaaw na bu leen ko defati dugg na fi génn ba ngeen demee ba xam ne sëñ bi importance am yéen koy doog xam ba ngeen duggee ca kaso bee ba mu génnee wax waxam ci lañ leen may li ngeen génn voilà lu tax andi loon Guy Marius dafa na importance mo moo sax sen boss voilà ndax mom du sax musulman mais fightam te yena a ci bir lutax tax ñew damboj mom moom ci biti Guy Marius Sagna moom Assane ñoo génnandoo bërki dem fi ñëpp gis ko embrassante lutax andil won ko mu ñew ak voilà mais ngeen tek ko fe ki ñew duggul sax ca kaso bu muy xurum xàq moom na sëñ bi def de discours révolutionnaire nangam nangam kërëb kërëb bëgg fee def sëñ bi activiste sëñ bi du activiste lu leer leen wax loo leen di def nañ ko def ci yar ak ay teggin te li ngeen def tegu leen ko ci yar tegu ko ci ay teggin kee di fa ab taalibe murit muy Assane Diouf dégg na sëñ ba la mu ko wax moom rek laa fa reconnaître koo xam ne kër googa dafa dafay dugg ak honneur mais yéen ñi dangeen ngeen faa situation mu leen fa yóbbu kooku dong moo fa nekk ab murit saadix ok donc boo leen di génnee di wax dégg leen discours bi nga xam sëñ bi wax na ko dinaa leen ko tegal léegi ngeen décortiquer ko bu leen dégg loolu xurum xaq di wax mel na sëñ bi dafa ànd ak ñoom sëñ bi leen teg ji sëñ Tuubaa mi fa nekk ki tedd gi nga xam moom la remplacé tey ci kaw xarnu bi ah nam doon doxale ak nguur noonu la leen wax sëñ bi mun leen fexe ba mu jaxasoo ak Macky Sall déedéet ndax buy wax ak moom ca téléphone ba la dañuy déggante dañuy waxante newu leen ne yéen da ngeen di xeex damay ñëw di xeex ak yéen damay ñëw def yi déedéet ay discours révolutionnaire amu fi de dafa leen ay yedd ngeen ay gone di ay ndaw da ngeen di déglu waxam jooju ngeen décorti ko naa lu ko tegal ku nekk sa kër nga déglu ko xam ne xurum xaq la mu leen di wax bëgg leen wan ne ñun def nañ suñ délégation dem nañ fa sëñ bi ñun la àndal noo du demee noonu na ngeen déglu bu baax waxi sëñ Muntaxa waaw kii du ngeen ko dugal kii mun leen ko jaxase ak nguur gee waaw ci sëñ Fàllu la ak Senghor ba tey jii muy moom nii ak Macky Sall bu ngeen amee jooy dem ngeen jooy ko seen baay nee na leen dinaa wax ci ma war a waxal voilà loolu la leen wax. waaye newu leen ngeen dem di def seen yëfi golo yi bis bu ne ngeen woote si ay nañ daje fee ay place de l'Obélisque seen affaire baadoolo yi nga xam ne mun leen a génne fukki nit affaire bi am ngeen ci profito yéen xam nañ leen avant lii di ñëw ñaar fukki nit mun leen woon dajale donc bu leen ñu rey déglu leen sëñ bi li mu leen wax ngeen jàng ko ngeen jël ko comme leçon kon a gars yi fii laa yem ak yéen tegal leen vidéo bi ngeen déglu kenn ku ne dama bëgg bu waxee ba pare euh, Dame wax na. Assane wax na Clédor wax na ah ngeen déglu ko benn taalib bi moo fa nekk bu Serigne Touba muy Assane Diouf mais te Assane dafa naan li ko sëñ bi wax jàkkaaroon na ak occasion boo xam am na ko na ko exploité mon frère déggante na ak yow xam nga nu mu koy xalaate ci yow xam nga lu yoon xam nga leen sëñ Muntaxa mu wax wala dey na la ko topp ko ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba Assane Diouf loolu laa lay ñaan. ñi nak bàyyi leen ñu def lu leen neex ñi yamoo ak ñoom asam ak ñoom dañ la dugal te gis nga dugal gi ñu lay dugal gis nga fam lay yóbbu du la amal njariñ am nga société mën nga leen njariñ ñi ay xex ak ay ye ay fitna rek lañ bëgg dundé yow rëcc nga kala kàllaama yu ñaaw yow nga doon génne wax nga ko ci kanamu kilifa gu mag tey bu aduna la wolbuti ko bang koy defati asat dama la ko ñaan en tant que frère ni la ko señ bi ñaané ci ay wax donc nañ toppatoo loolu ñee bu ñuy def seen yëf yi dof seen yëfi yi bandi bàyyi leen ci yooyu bul ànd ak ñoom ci yooyu ndax li nga gëm ñoom gëmuñu ko tey seen intérêt personnel moo leen indi foofu yow donc yaa ko nekk murit sadix kooku dafa war a clair ok gars yi fii la ñuy yem Xadim Gueye TV la boo ci bindu woon nañ ci bindu ànd ak yar ak teggin sama chaîne ay saaga mayuma ko fi kenn boo fi saaga bloqué sa maam signalé sa maam laay lay def sequma yéen ay problème yi saagaak di di di leen tontoog bu kenn xamul aw ma seen tax kon nag peace and love ñu xool vidéo bi ngeen déglu bu baax wax yi déglu leen li sëñ bi wax après kenn ku nekk nga tirer sa conclusion xam lolou len karim di wax ay discours révolutionnaire bu seigne bi wax xol len lan la len wax ñom seigne muntaha do len ko duggal ci sen wax yi voilà peace ciao saya lu mu filmé la cadre cadre nante rek bu la kenn taxaw taxaw bul taxaw na hmm. salaamaaleykum man la Clédor Sène ak euh, waa coalition Le Peuple coalition Le Peuple benn kuréelu citoyen ñun dañu dajaloo pour rek euh, yëngu ci lu soxal mbirum Sénégal am ñu jàppoon ci ñun léegi booba dara xewul mais li fi xew yëpp teewee nañ te gis nañu aussi euh, tànk yu mu ci dox yu rafet yu mu ci dox parce que Sénégal benn kàddu rek moo mën a dëppale yëpp ci jàmm parce que euh, lu chance la pour Sénégal parce que nit ñi jaaxle woon nañu loolu même man ci kasso dama ma sax damay xol ci télé bi li taw amna mbettel waye ba nga waxé dañu bàyyi lepp lu ñu jàppoon tek ko ci suuf té gis nañu ni amna na euh ñu ñu won nak ñun bu ñu gën euh, ki nga xamni mo jëmmal sa yéene ak sa pas-pas euh, muy sëñ Bass parce que doxal na mission bi ci anam bu mu gën a rafetee te doxal na ko fu mu gën a nekkee yoon donc euh, fexe na ba ñun ñëpp ñu waxandoo defandoo ci benn kanam euh, li ñu ñaan la chaque fille loolu moo ñu ngi ci ñu ngi koy jëfee euh, loolu moo waral ngërëm bi nga xam ne dina dina ci yow waaye dina àgg suñu bàq poroxaan mi nga xam ne bëgg nañ ko ziare ma yemale ko foofu rek bàyyi daam euh, mu mottali nga xam ni sëñ Mansour mii toog ci la bokk ak mii ak man mii Dame Mbodj ak Diouf euh, ak Abdou Karim Gueye ak Madina Dieng. Serigne Saliou Thiam. ak Mamadou Lamine Dieng. léegi nag ñu lay wax ne ñu ngi lay gërëm bu baax mbak di santit nag ñi nga xam ni ñoom nga joxoon euh, ndigal bi ñu ñëw fekk suñu ca Ndakaaru euh, te sëñ Bass Porokhane jiite woon ba ñëwee fekk nañu waajaloon ndax booba euh, xel yëpp jaax na ñëpp tiit nañ Sénégal bi nga ñëwee yónni leen ñu ñëw matale nañ lool la nga leen waxoon. Mm-hmm. ba ñëwee ñu ñaan nii sëñ Muntaxa nee na ngeen teg lépp ci suuf ban ko waxee ca fasaase ñu ngi leen nangul nañ ndaxte mooy suñu kilifa bi kilifa kii yor réew fii sëñ Muntaxa lu mu fi wut bu ñu woowoon ca Touba dañuy déplacé wu ñëw lii mu leen yónni sax ñu ngi ci ñun lu rëy rëy la ci ñun ñu sant ca lool bi ñëwee léegi ñu ngi sant bu baax sëñ Bas bi ñu yegsee dal nañu dal bu rafet moom ak sëñ Modou euh, Roqee ak euh, sëñ Abdou ñoom it wax dëgg yàlla euh, li ñu won fii tey gën na noo yokk sama pas-pas euh, sëñ Abdou Diop mii nga xam moom la sëñ Bass Porokhane euh, yónnee fi mu ci kàddu yi rafet wax dëgg yàlla rafet na li nga xam ne moom lañ taxawee ñun tamit ca Ndakaaru bi ñu ko yónnee ci ñun ñu lay xamal li nu bëgg rek ci réew mi mooy réew mi am dal moo tax Mbàkke bi nga ñaanee ñëpp ñëpp fekk si la ci loolu Sénégal gépp a kontaan ci ndaxte ñëpp tiitoon nañ ne Sénégal day tàkk naam am na lu jot am waaye bi nga àddoo rek Mbàkke yónnee ba nga yegsee lépp loolu la ci la lépp sedd moo tax Sénégal yëpp ñu ngi lay ñun nag li ñu tax a jóg mooy defar réew mi lii nga xam ne mooy ruuma daat ci réew mi bëgg a yàq réew mi mu dakk ku sa mandat jeex nga dem ci jàmm képp ku Sénégal yi bëgg a fal ñu fal beneen bi mooy lii nga xam ne coow loo xam ñu ngi koy dégg ci réew mi muy coowoon ngóor jigéen liñ bëgg a lawal ci àdduna bii te yow ñii xam ne looy yéen ko ci liggéey pour diina ji nga xam ne seen loxo seen i kilifa lañ ko joxoon ngeen bëgg koo bàyyee seen i sët seen Sénégal yëpp nekk ci nekk ci jàmm loolu rek la ñuy ñaan Mbàkke pour ñu jàppale ñu ci pour Sénégal dara bañ koo yàq sunu askan kenn bañ koo yàq ndaxte yow ci lu baax rek ngay ñu ne lay sant di la gërëm di la wax dëgg yàlla lii nga xam moo am Sénégal nga yëg ni Sénégal yëpp nga ko defal ñun nag xam nañ yow nationaliste liggéey nga lu baax yàgg na ci réew mi kon nag tey na nga la nga daan def Mbàkke jërëjëf jërëjëf Mbàkke jërëjëf ngi sant bu baax ci jàkkaarloo bi ma jàkkaarloo yow li may njëkk a yëkkati nag ci samay kàddu mooy maa ngi jéggulu ci yenn kàddu yi nga xamante ni bu yeggseeg bu yeggsiwul dem na ci nopp Sénégalais yëpp waaye nag li am jamono yi weesu moo taxoon nit ñi di dégg Assane di faar ndax bu fekkente ne réew danga nga cee nekk bàyyi fi am fi ay mag yu baax ñu toog rek loo soxla boo ñëwee ñu ñaanal la ko ñu xëy am ñoo xamante ni kenn xamu leen woon suñu bàyyi sonn lool ñu ñëw jiite ñu ba pare du ñu déglu kenn moo waraloon ñu dégg yenn kàddu ci man ma ci jégalu bu baax. di la sant bu baax tamit comme ni ko waaye li ma gën a soxal ci yegg si bi yegg si fii man ku nekk xam na ni Amérique laa nekkoon Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke. sa mag ja moo tax moo ma yóbbu woon Amérique ma demee musuma laal yu fi jàmbur musuma tooñ musuma def lenn boo commencé di jooyal sama réew ñu fekk ma fa jiiñ ma terroriste ñu am suñu benn mbokk bu ñuy wax Ousmane Tounkara mooy sama xarit nga xam ne bañ ma jàppee ci Sénégalais xam kenn musu koo dégg kenn musu koo gis ñu jàppaat ko bii yoon jiiñ ko terroriste bu bëggoon Macky ñaanal ko

jërëjëf ma jërëjëf mu ne yëg na yitte yi leen yëkkati ci seen jotaay bii nee na loolu nag yaatu la moo xam ne nee na mbir mu yaatu la moo xam ne

kan Serigne Touba. diggam ak àdduna. diggam ak àdduna. diggam ak. nguur gi nguur gi mu fi fekkoon. diggam ak nguur gi mu fi fekkoon. gis ngeen na mu demee. gis ngeen na mu demee. loolee rek moo fi nekk. nee na loolee rek moo fi nekk. jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke. jërëjëf Mbacke. lu mën a xew rek. nee na lu mën a xew rek. da ngeen di dalal seen xel. da ngeen di dalal seen xel. gën a rafet njot te gën a rafet njot seen diggante ak seen borom seen diggante ak seen borom ndax mooy def muy yéen ndax su borom mooy def muy te wuutewul dara te wuutewul dara mënu gën a xam suñu bopp te moonu gën a xam suñu bopp moonu sàkk ndax moonu sàkk te moonu gën ci suñu bopp yi te moonu gën ci suñu bopp yi itam ay kàddu la yoo xam ne nee na lii mu leen wax ay kàddu la yoo xam ne ma ne la ko yàlla demee woon jamonoy Serigne bu Serigne Touba di feeñ. Hmm. noonu àdduna demee woon bu rek fi nekk. ba tey loolu rek moo fi nekk. noonee Serigne Touba doxee woon itam. noonee Serigne Touba ko jullit yëpp. yéene woon ko jullit yëpp. jaay boppam boromam. jaay boppam boromam. liggéey mu liggéey ko. ba liggéey bu rëy bi mu bu rëy bi mu liggéey mu liggéey ko. bàyyi na ko bàyyi na ko. loolu rek dina ko. nee na loolu rek nag moo fi nekk ba léegi. bu leen jombale seen bopp dara lu baax. jombale seen bopp dara lu baax. jëf xam naa léegi li tax ay bëgg lu baax leen ko teg. nee na xam na li ngeen def la bëgg lu baax leen ko teg. waaye nag lu baax lay dëgg dëgg dëgg lu baax. waaye nag lu baax lay dëgg dëgg lu baax. dafa am yoon. loolu lépp nag. nee na loolu lépp nag. loolu ni rek. ni leen ko tënkale rek. ci sëriñ bi ak joo jamonoom. Mm. ci sëriñ bi ak jamonoom. Mm. loolu rek mm. rek moo fi nekk ba léegi. lu lu ñàkk solo ci moom. ñaan lu ñàkk ñàkk solo ci dund ak sëriñ bi ak fa sëriñ bi toll. nan ci ñàkk ñàkk solo. lu ci ñàkk ñàkk war na noo xam ne loolu mooy suñu donoom. war na noo xam ne loolu mooy suñu donoom. waruñoo bëgg dara. waruñoo bëgg dara. nun ñii. li fi sëñ Tuba bàyyi. mais li fi sëñ li fi sëñ Tuba bàyyi. waruñoo bëgg dara. waruñoo bëgg dara. defar rek la mooy suñu warti. defar rek mooy seen warti. defar dong mooy suñu warti. nee na defar rek ñoom mooy seen warti. kon defar gi. kon defar gi. ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen ndawi réew mi. yéen ñi nga xam ne yéen ndawi réew boobu. كيف تلقى بوبي من دفعك كم قل انت كم قل انت دفعك دفعك دفعك دفعك دفعك ثم انا جاب ثم انا بري لو خرج بري بري بري لب ثم انا جاب ثم انا بري بري يعقوب يعقوب دفع يعقوب دفع آه، يلا مو دف لب جوبر يلا مو دف لب جوبر فونك اي فو قلنا يق يق يقو يم قلنا يقو يم فو دفع كده taxaw defar. waaw defar kat lañu wetu di defar. kon nag. kon nag lii ñu gis a gis néew ci tolluwaay bi. lii ñu gis a gis néew ci tolluwaay bi. dara dekkal fa seen i tànk tànk lan bi sëñ Tuubaa bàyyiloon ñu nekk ci loolee. du dara loolu fa seen i lan bi sëñ Tuubaa bàyyiloon ñu nekk ci loolee. loolu dong. loolu dong. xam na moo moo moo andi lii. nee na loolu moo andi lii. waaw nag kon noonu rek la. kon noonu rek la. ان شاء الله ku ne tekki itam. te ku ne tekki itam. ànd ko dal. ànd ko dal. boole ko ko njub. boole ko ko njub. bëgg la ngay bëgg. bëgg la ngay bëgg. nga di ko am wut ci yar ak teggin. nga di ko wut ci yar ak teggin. mais boo nga rafet yow. jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke. jërëjëf Mbacke kontaan nañ ci wax. lu ngeen mën a bëgg ak lu ngeen mën di wut. lu ngeen ànd ak dal. lu ngeen ànd ak dal. akuk teg bëgg la ngeen bëgg. Hmm. bëgg la ngeen di bëgg. di ko wut di ko wut ci yar ak teggin. di ko wut ci yar ak teggin. Hmm. téléphone jot.

amiin amiin amiin balay te kontaan pasamos de waaw gars yi mi ngi noonu ñoo ko gisandoo euh, sëñ Moutakha li mu wax leer na macha allah yàlla na fi yàgg te wér xol yi sedd na guy wax dëgg yàlla. waaw waaw ñoo ko waaw loolu dara instant yii maa ngi ci de gis nga. na macha sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah yàlla yombal nañu lépp sëriñ bi li mu wax leer na nañ nañ nañ xol yëpp sedd na. xool yëpp sedd na xool yëpp sedd na macha allah. li nga na fi yàgg tamit képp ku ko ma wax rek ni gars yi tey moom taxawaay bi loolu la woon ci sëriñ bi coalition le peuple moo ñëwoon Touba di siyaar sëriñ Moustapha Mbacké yàlla yàgg te wér sëriñ bi def wax discours xaw ma ndax am ngeen dégg man mag ñi bu ñuy wax man dama am dégg man damay dégg maanaam discours révolutionnaire la sëriñ bi wax suñu waxaa nag li mu wax la ma waxoon Macky Sall ne ko lii ci suuf balaa bàyyi li ci suuf balaa balaa balaa réew mi di tàkk say loxo Macky Sall soo amoon xel tuuti dina xam da ko wax ni ko boo toogul réew mi dina tàkk say loxo ama mag ñi mag ñi sëriñ si dafa am ñoo koy xam donc sant yàlla bu baax a baax xol yi sedd na guy guy wax ni combat bi yëpp nag vraiment ci mbébét yeeg coow leeg li ñu nekk yëpp le combat continue ay tey waaw ñu ngi waaw ay bisimilah yaa ngi sëñ bi yaa a ngi lay gis de sama kii dafa kii nag quoi sama am ah, yéegal waaw kuma da wanga xol sedd na guy guy guy guy guy waay ensemble pour un Sénégal meilleur quoi ensemble pour un Sénégal meilleur jaajëf sëñ waaw résumé bi mooy daal si gàttal daal sëriñ bi li mu wax ñun ñëpp dégg nañ ko yaaka naa ne ku seetaan bi di nga comprendre ni coalition le peuple mooy def tournée tey mu ñëw jiitu ci sëñ Mountakha mi nga xamante ne ñëpp gis nañ jéego yi mu def jéego yi mu def nga xam ne amaana bu ko deful woon amaana dara du ko ci fekk mënu na ko bañ a def mu def ko def responsabilité am téye ko ñëpp pour Sénégal am jàmm xamal ñu ni Serigne Touba li mu fi bàyyi woon ak ña mu doon xeexal ci gouvernement li sëriñ bi wax dégg ngeen ko mu ne moo fi nekk ba tey jugu fi maanaam loolu wax boobu ak dégg la laaj ak dégg wax boobu ak dégg la laaj léegi nag moo tax bi ñu xoolee ba gis ni ah. di di président président Macky mi fi nekk.